bi foofu waaw Moussa ñu ngi leen di teewal fii ci département bu Guédiawaye bu fekkee am na benn seet bu ñu gis ci centre yi jot a doxantu yëpp mooy ndaw yaa ngi ko tey jug nañu parce que li ci ëpp bureau de vote bu doon ubbi mag ñaa fay ëpp waaye bila yoon ndaw yi duñ fee bëri lool surtout ci centre Adolphe Diagne bi nga xam ni am na 22 bureau de vote ñu gis fa sax euh, ay candidats yu ko voté ku ci mel ni ex ancien député Cheikh Omar ci nekk candidat à la mairie de Golf Sud ni may waxee ak yow ñu ngi centre Jarka euh, Diagne ñu gis fi ay candidat ku mel ni Gouda Dione bu grande coalition Wallu Askan Wi jaar nañu fële tamit di école banque islamique maire maire sortant bi di Aliou Sall fa la ak directrice de campagne am bu ci Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse li ñu mën a seetu ci géejewaay daal mooy am na jàmm daal am na bien vrai que amoon na quelques fois au début ba am ci quelques bureaux yu yéex a commencé seen vote vers huit heures trente. kon euh, yéen a ngi euh, géejewaay ba tey ginnaaw bi dinañ jàpp ni euh, boo leen jógee ci ville bi comme noonu nga ko waxee rek am na yeneen juróomi commune yoo xamante ni ñoom it ña nga fa ndax géejewaay googu tamit buñ ko waxee gis ni ci pikin la génnee. Pikine tamit 16 euh, communes yi nga xamante ni ñi ngi fa ginnaaw bi fekk si lu jëm ci wàllu ville bi kon euh, mu jëm ci wàllu poids électoral boo xamante ni dafay xaw a doy waar. parle de la banlieue wax lu jëm ci wàllu Pikine Géejawaay rek 21 communes mi ngi fa xëy na bu fekkoon ci lu jëm ci wàllu présidentiel ça doit être conséquente mais tey. moom mi ngi géejawaay jàngat boobe noonu ndax Alioune Sall aussi mi ngi fa waa Gëm sa bopp ak Ahmed dara ñi ngi fa. Mm. foofu tamit ban lecture politique nga ciy def. waaw foofu tamit euh, <laughs> mbir mi dina dina dina dina dina dina compliqué surtout Aliou Sall parce que euh, mooy maire sortant bi mhm. et en même temps c'est le frère du président oui. parce que bët boobu la ñu koy xoolee yaa ngi dégg et euh, gis nañu avant même campagne bi les activistes liggéey liggéey boo xam ne daal influencé sur plus ou moins l'opinion de Guédiawaye yaa ngi déggee bu bu ma tudd tour mais bu ma jëlee l' exemple euh, du candidat Ahmed Aydara mhm. ah xam nañu ne euh, euh, pratiquement moom ak Aliou Sall n'est-ce pas euh, en tout cas du point de vue communication ñoom ñoo ñoo ñoo ko au devant wax ma ne yeneen candidat amuñu am na kaa am na gaa par exemple euh, candidat euh, PDS bi et, et ensuite beneen mbir mi boo xam ne dañ ko war dañ ko war a noté mooy Malick Gakou boo xam ne daal sa base c'est Guédiawaye mhm. c'est vrai qu'il n'est pas candidat mais moom euh, Yewwi Askan Wi la bokk mhm. te ñoom seen candidat mooy n'est-ce pas Ahmed Aïdara mhm. dans tous les cas pour man euh, du yomb pour Aliou Sall yaa ngi dégg parce que je sais que il est maire sortant am na euh, toute réalisation bu mu def n'est-ce pas sur le terrain mais comme ni ma lay wax en politique campagne électorale du réalisation kese parce que da ngay parce que yow yaa digoon que da ngay def lii def nga ko euh, wàccoo nga nest ak kii léegi lan la ñuy séntu maanaam est-ce que moom si programme bu mu am nii pour euh, euh, kii bi bu mu laajaat n'est-ce pas élection pardon mairie bi. Mhm. est-ce que programme boobu waa Guédiawaye n'est-ce pas ànd nañ si. Mhm. donc s'il ne s'il n'a pas la capacité disons de faire rêver n'est-ce pas les populations. ay war ni voilà alors y le euh, la maire euh, sortante muy euh, Soham El Wardini moom mi ngi actuellement nii fi nga xamante ni moom moo di école na Nafissatou Niang 11h la joxe woon rendez-vous ni foofu lay voté Adjara Bonardi Cissé mi ngi ñu koy toppal donc mi ngi noonu moom it mi ngi ñëw ci. dugal naa dugal naa allo allo transiter def beneen transition ndax génn nañu géejawaay mais moom it mel na ni mandat la eggali Bakary moom mi ngi eggali benn mandat bu nga xamante ni Khalifa Sall donc qui sait 2009. xool ko je me rappelle ci 2014 bi ñuy réélire xalifa Sall. mi ngi waatoon derrière euh, le candidat xalifa Sall. li ci am am na xam nañu ko mais teewul après moom. mu doon koo xamante ni euh, bénéficier na de sa confiance ba donc conseil municipal bi ñëw. élire ko mu eggale mandat bi tey mi ngi bëgg a taxawaat waaye teewul ville de Dakar bokk na ci conseil ak ñu ci bari ñoo xamante ni tas nañu alors le potentiel candidat bi nga xamante ni mooy Soham Wardini waaw Soham Wardini d'abord tamit euh, bu ma gisee euh, votam donc mi ngi nii di waxtaan ak ay partisans wam waaye mel na ni ni ma ko comme ni ma ko waxee donc mu euh, ngi nii di xaar mu amal votam rek ñu daal di koy laaj nan la ressentir mbir mi donc mu ngi nii dooree yegg si donc ñu topp ko rek ngir mu daal di li ni amal moom votam donc ñu nuyu la bu baax a baax euh, madame le maire euh, ñu gis la ci rang bi ah nga ñëw heure aussi comme ni nga ko waxee woon euh, ñun waa 2STV ñu ngi def direct pour nga wax rek téléspectateurs yi ci li nga xamante ni moom nga fi fekk ndax dal na sa xel ak it ressenti bi nga am avant vote bi. bon <laughs> ressenti bi je pense que bi mi ngi déroulé wu normalement ci li ma gisagum. ah tey la bésu tànn may ñaan yàlla rek comme niñ ko defee ci campagne bi dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin ah nit ñi vraiment c'est calme nit ñi voté delluwaat seen kër li may wax toujours mooy lancer un appel à la paix mais aussi demander aux électeurs ne ku ci voté ba pare rek nga dellu sa kër toog parce que ñu bari dañuy wax affaire sécurisation du vote mais loolu am na ay nit ñu tànn pour ñu toppatoo loolu kon bu ñu bëggee am rek dem toog sa kër nga xaar résultat te loolu laay ñaan électeurs yëpp maa ngi sant yàlla nag ndax wax yàlla ma def naa campagne boo xam ne aw ma ci benn problème adversaire yi ma dajal yëpp wàcc nañ ku nekk sa oto saafante ak sa morom que le Meilleur gagne donc loolu moom mooy moo euh, yi nga xamante ni euh, daal dina euh, li nga ni moom mooy votam donc nu ci noonu sax dañuy daal di laaj ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ndaxte boobu ba léegi maa ngi koy wax mag ñi ñu ngi ñëw ndaw ñi ñu ngi ñëw waaye it ñi nga xamante ni ñoom ñoom la àndal donc da nga may topp rek ma yóbbu la ci bureau de vote 1 ñu daal di xool ñi nga xamante ni ñoo ngi fi ñëw di voter comme ni ngeen ko gisee nag bi moom am na fi donc ñu ngi gis madame même soxam wax ji nii mi ngi ci bi donc balaa boobu noonu euh, rek le temps que muy dugg wala muy génn ñu xool ñi nga xamante ni ñoom lañ fi fekk ñu wax ñu rek ñoom it ñu naka lañ gisee li nga xamante ni moom mooy élection yi ak it woote jàmm bi nga xamante ni euh, ñu ngi koy euh, bëgg amal donc da ngeen may topp rek ñu daal di mi ngi noonu Ajara le temps que ñu bàyyi ko moom it mu xool ñi nga xam ne ñooy ñoom ñooy population bi mu mel ni kon Bakary yaa ngi woon ci. Soham donc waaw Soham maa ma gisee Euh, dafa nekk ci rang bi. Mhm. parce que généralement les candidats bu ñëwee rek dañuy daal di dugg. Ah, donc amul protocole moom mu mhm. def n'est-ce pas mu nekk ci bi. loolu jàngat la du point de vue n'est-ce pas du marketing politique. Euh, boo xoolee c'est l'image euh, du common man. Mhm. l'image du common man maanaam. Euh, dafa niroo ak nit ñi ñëpp maanaam dafa suuf euh, euh, wàcce boppam. Mhm. ah niroo ak citoyen c'est-à-dire que c'est le citoyen moom la gis fii. Mhm. citoyen mhm. citoyen day def ram citoyen day dem voter. donc image boobu n'est-ce pas la renvoyer te loolu image bu ñu xam dañ ko rafetlu. maintenant chance war di nii wala am na chance wala amul chance loolu beneen mbir la certainement boo xoolee ni mu ñëwee ci mairie Dakar. concours de circonstance la mbir yàlla la rek. yàlla moo ne fii lay jaar bu nekk maire mais après ce qui s'est passé mooy euh, bu ñu doon tànn euh, candidat si biir yeewu askan wi donc moom euh, dafa bëggoon ñu tànn ko moom parce que mhm. am na expérience mhm. def na égal na mandat bi donc dafa laajaat beneen donc logiquement mun nañ ko ko nangul mais xëy na Khalifa Sall ak ñu ma àndal dañu amoon beneen lecture et yeneen information lu tax mhm. jëluñu te ko mhm. ah en tout cas moom gisul mbir mu noonu mu mu mu mu ber daaram mhm. donc wóor na ma ni bon euh, elle fait partie des candidats yoo xam ne daal euh, je ne pense pas que euh, ñu am chance trop vraiment nekk maire Dakar mais quand même mun nañu jouer à ce que j'appelle un peu les les faiseurs de loi oui c'est-à-dire que comme raw gàddu la. Euh, da ngay dépasser benn voie rek yow yaa nekk maire. Mhm. donc elle peut jouer n'est-ce pas le trouble fête. Mhm. <laughs> donc si loolu donc euh, mun na ko bon ban électorat lay puiser. xëy na mu puiser dans l'électorat n'est-ce pas de l'opposition wala oppos carrément électorat n'est-ce pas Diouf Sarr. Mhm. yaa ngi dégg kenn xamul donc euh, dans tous les cas moom ni ma ko gisee daal faiseur de roi lay doon. ah ou trouble fête lay doon mais dans tous les cas quelque Euh, daan na arrangé disons Yewwi Askan Wi. Mhm. su fekkee elle s'était rangée n'est-ce pas du côté de Yewwi Askan Wi parce que quoi qu'on dise. Uh-huh. Euh, quand Khalifa bi dafa divisé wu. am na am na ñu ñu ñu dem si moom am na ñoo xam ne ñu ngi si ginnaaw Barthélemy. Mhm. voilà alors tey doyen laata ñu préparé ñi nga xamante ni ndax a euh, Grand Yoff naka noonu Patte d'Oie suñu beneen ndawit mi ngi fa.